salaamaaleykum mbokki Sénégal ñu ngi leen di ziar bu baax a baax li xew biir assemblée nationale dafa am solo ndax euh, l'histoire retiendra. Naby Vision HCCT dafa am ñoo xamante ni dafa leen arrangé am ñoo xamante ni arrangé wu leen waaye dina ñu koy xeex ni ñëpp c'est parce que c'est une question d'intérêt ak milliards ya ca ne moo bëri te takku loolu te ku ci nekk yaa ngi xool sa intérêt boobu. Euh, li am solo nak modi da euh, dañu toll fo que euh, président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a ay et je sais que dina ko jël dañ euh mbéju kanam borom moko mëna fajal député Abdou il va déposer une motion de censure pour éliminer euh, carrément euh, euh, état bi fi c'est xam nga ni lolu bu ko waxee ay waxi naxa sax xandang la xam nga des fois ndeysaan nga nax sa mais laisse mouton pisser qui viendra président Bassirou Diomaye Faye xamal ni le Sénégal est derrière vous. nabi Vision. président Ousmane Sonko xamal ni le Sénégal est derrière vous. il faut dissoudre l'Assemblée nationale pour l'intérêt des Sénégalais parce que loolu la ñuy xaar ci yéen te nag digee bor la ndax li xew biir assemblée nationale moom wax fa dëgg yàlla neexul ba neexul waaye dañ ko fa war a jëlee daal te indi fi leneen lu bees c'est très important assemblée boo xam dafa mel ni marché bu tas kenn joxantewul cër si sa biir xastante defante assemblée nationale daal mérité wul bi façon assemblée nationale donc daal ñun lu ñuy xaar moo di ñu assemblée nationale ngir amad benen assemblée nationale bu félicitations l'état du Sénégal félicitations le président Jomai Jahar Faye félicitations Ousmane Sonko jub jubal la wax ak Sonko Sonkoy Diomaye Diomaye Sonko. la wax ne li Sénégal yépp di xaar ci yow monsieur le ministre li Sénégal yépp di xaar ci yow diko wax président de la république Bassirou Diomaye. sénégalais yi ñu sénégalais yi mer nañ sénégalais yi ñaar ñett ñoo toog dañ naan yeex gi dossier yeex moo leen xaw a jaaxal ndax bang bang gi ak bañ bañ lu gi du dara lu dul li ngeen yeex ci yenn dossier yi kon jàpp naa loolu war ngeen koo baral ñi nga xamante ni ñoo rey suñ 84 personnes yi te ay sénégalais yoo xamante ni sénégal yoon moo leen may ñu génn manifesté wu légalement ñu tiiri leen ñooñu ñu leen rey war nañ koo feeñal di nuyu nag sa mbokk force spéciale yi la toog fële sa mbokk force spéciale yi ak rebelle yi maa ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay seen taxawaay ci réew mi rafet na moo tax alternance am tey jii bu honorable far Farba Ngom toogee fii mën a yaru yaru bu toog nii yéen yéen a ko waral wasalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatu merci cher collègue. Naby Vision. cher suñu Cheikh Thioro li wax dëgg la de balballu gi yëpp ministre de la justice bi yaa leen ko may ah te wax na kàddu bu ma neex nee na force spéciale yi ak ñi nga xam ñoom ñoo les terroristes ñu ngi leen di nuyu. <laughs> waaw ñoo fi nekkoon de ñu ñuy traité de tous les noms tey léegi jeex na balballu bi jeex na tey ñi gënoon a bucceeku fii biir Sénégal fi nga xam ne moom moo nekk ci assemblée nationale bi ñoo gën a yaru ñëpp parce que seen bàyyi ma gisaal la fi nekkoon mais nekkatu fi de léegi moom jub jubal jubbanti la waaw di ñaax ak ministre de la justice rek gars yi moom boo leen defalee eh, bu ñu leen defaloo ay tali en or jox leen li nga xam moom la ñu gën a bëgg lenn rek lañ soxla muy justice soit faite pour jeunesse bi nga xam ñom lañu ray ak ñi nga xamne tay instant mutuel ni ñu leen doon japp injustement japp leen ci kasso yi di leen di di di leen di leen ki ci kasso yi di leen nu ko wona waxe sax di leen amoon promiscuité bu graw bi bir kasso yi chambre bo xam tay instant ay 30 personnes ñoo nek nekk di ñëw def plus de 300 et quelques ñi di génné fa ak ay fièvre ñi génné fa ak infirme ñi tay instant mutuel nii ñàkk lu bari bari bari. ñii seen i parents deej seen ginnaaw ñii seen i jabar am doom seen ginnaaw ñii seeni i jabar dem seeni ginnaaw loolu lépp gouvernement président bi moo leen ko yóbbee. Naby Vision. kon nag justice boobu noonu tey yow la ñuy ñaan rek ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax te ngeen gaaw ci bien vrai que xam nañ ne yéen a ngi ci mais na affaire yi gën a bar kese beneen bi ci des mooy dégg naa Abdou Mbow mu ne xaw ma day def motion de censure tey mais Abdou Mbow yow da nga xamul sa bopp quoi da nga sa bopp.

danañ xam ndax yéen yéen moom dëkk bi wala instant bi ñu toll nii ñi nekk ci kaw dëkk bi ñooy gouverner wasalaam. je crois que na gars yi waxante dëgg nag entre ñun jot na euh, waxante dëgg mooy euh, tey nouvelle bi ma xëyee ñu ne assemblée nationale dañ leen a bëgg indil projet de loi pour ñu dissoudre au conseil des collectivité territorial ak conseil économique social et environnemental. sama gars yi bu dee ñun rek lañ hmm, waxuñ pour waxu politicien. xam nañ ne ñaari kër yooyu noonu ñaari bànqaas yooyu man kan moo ma mën a wax ñoom ban njëriñ la ñu am si réew mi ak lan la ba cest lan lan lan la ñaari ñaari ñaari instance yooyu lan mooy seen liggéey ma ko lan mooy seen liggéey ban njëriñ la am si Sénégal. Naby Vision. jàpp naa ne loolu bu ñu jugee pour applaudir ko dama ne Abdou Mbow yéen ñu nekk assemblée nationale bu leen ñu fontoo projet de loi bi voté leen ko voté leen ko mu jàll ñu tas ñaari kër yooyu xaalis bi xaj na feneen. taxul nag ba léegi ah sëñ Ngundu ak euh, Koukandé xam nga def dara si réew mi defuñ fi dara defuñ fi tus mais nag aussi bu dëgg rek tax jotee dañ koy wax ñaari instance yi ñaari kër yooyu noonu dama ne amul njëriñ si sénégalais yi lu dul këru gazé politiquement ay nit te loolu vraiment war nañ ko romb war nañ ko passé dama ne voté leen projet de loi bi mu jàll ñu tas assemblée ñu tas au conseil tas yi parce que kër yooyu amul njëriñ amul njëriñ si Sénégal encore une fois taxul nag ba léegi ñaar ñeenee def si dëkk bi dara ba léegi dara defuñ ko fi dara dara dara dara doxul kon gars yi ngir yàlla yenentu bu leen topp seen affaire politicien ba ñu bëgg dugal Sénégal si guute dama ne voté leen lii ñu tas lii ñu jàll buñ fa jugee tas assemblée nationale dem ci yeneen affaire xam nga gars yi tamit ñu jéem a xool naka la ñuy def ak ñoom au moins eux ils prônent l'excellence contrairement ak li fi amoon bii Vision gis nañ li fi amoon yàggul dara ku dàq saaga ku gën a mën a wax wax bu ñaaw kooku lañ daan promouvoir kooku lañ daan jël di ko dugal ci avion yi di ko yóbbu buy tukki kooku lañ daan jël di ko signer ay convention ak lu nekk lu nekk lu nekk yeneen ak yeneen ak yeneen tey jii nii ñii bu ñëwee jël les meilleurs élèves du Sénégal yóbbu leen Chine président di tukki yóbbaale leen loolu ça veut tout dire day wane rek vision bi ñii nii am ba tey président bu faluwaan ñun lañ fi jot a fekkee. Abdou Diouf Abdoulaye Wade Macky Sall heure bii nii am na ñoo xam ne bëgguma leen tooñ parce que man du ma bëgg a tudd yenn tur mais xam nañ ñi may wax ñenn ñu ngi jaabante biir pale ñu leen di jox ay 10 millions ak quinze millions ak bëgguma tudd kenn parce que boo tuddee da ngay tooñ mais xam nañ fii ni état ni mu daan fonctionner mais xoolal état bii nii muy fonctionner nga xam ni c'est différent kon xam ngeen ni rupture am na te lii nii même pas cinq mois la kon donc ñi bu ñu defee un an wala deux ans wala trois ans di nga gis rupture bu gën a bu gën a doy waar bii nii. Naby Vision. tous les domaines fépp ay changé caaxaan yàq yooyu yëpp jeex na Sénégal.